nga bëgg wax changement dama la defal différence bi. Mhm. différence bi mooy changement par rapport aux orientations yi ñu la doon teg par exemple koo xam ni bokk na Pastef def lu mu warul def ñu jàpp ko loolu mooy changement changement bu bañ a teg sa loxo ci kuddu bi ci dossier yi. changement boobu am na li ngay wax am na parce que parce que mën naa ne waa Pastef yi am na ñoo xam ne dañuy def lu naka sudul noonu te yoon du leen teg loxo si bépp Pastef amu fi bépp Pastef alaa gis nañ ko fi wax na li mu war a wax yoon tegu yoon tegu bañ a teg loxo képp ku fi def anamu mi ngi déambulé ci mais dama ni la képp ku fi def loo fi warul def nga nekk Pastef Ousmane ko wax na ko hmm. waa ji defoon li mu warul def ministre de la justice téléphoné ko mu ni ko defal sa liggéey maintenant changement pour sax en deux mois kenn na déambuler continuer xam nga procureur ya changé justice amna lu bari lu ñu changé gul. vous tax ni le deux mois mëno ci changé lu deux trois mois té tous les gens avertis xam nañ ko wax dañu xamul wala ñuy wax lu aujourd'hui les grandes orientations posent les points qui vont orienter vers le changement loolu en deux mois trois mois alors si demain, on a un an deux ans si le ñuy gis fruits yi commencé parce qu'aujourd'hui, vous faites fekkee un ngi xool ni fii dafa doon vingt millions fii trente millions boo demee ONAS ñuy saboté boo demee fu mu tudd port muy saboté boo demee CDC ñuy saboté loolu yëpp il faut nga redresser ko delloo si xaalis boobu boo ko delloosee au bout de six mois huit mois dina jur lu nga xam ne di nga commencé nag créer ay emploi par rapport à ça noonu la économie di doxee. te loolu ce ne sera que le commencement Sonko moo waxoon ne buñ fi may kenn temps de grâce. non même ñoom sax buñ leen. temps de grâce. donc boo nee ay un an. Euh, oui donc cela veut dire que ne manam lolu ben durée bu yag la. kenn te nañu que ne manam état du du lay démé dama ni la c'est impossible en deux mois trois mois nga changer lu nga xamni ni nañ ko pendant vingt ans parce que mesure révolution yi ñu teg yépp mhm. loolu vingt ans ci ginnaaw kenn tegu Ablaye Wade sax tegu ko deful déclaration de patrimoine par exemple. Mhm. lolu clarté orientation yoy la ni kenn defuko Té lolou tant que defuloo ko doo mën dem de l'avant aujourd'hui déclaration de politique générale sax defaguñ ko xanaa gisoo euh, n'est-ce pas loi d'orientation orientation bi ñu ñëw budgétaire bi ñu ñu bañ ko mhm. waaw ñooñu est ce que ay patriotes lañu xana xamoo loolu mën na bloquer réew mi ba am na xaalis boo xam ne dañ ko war a génne kenn du ko mën a génne loolu yëpp ay ndëgg sërëx la ñu nga xam ni ñeneen ñaa ngi koy teg loolu tax man le deux mois trois mois kenn mënu si def dara premièrement mhm. deuxièmement il faut nga am une majorité confortable à l'Assemblée nationale nga sogaa liguey gis nga liguey bobu malay wax deux mois trois mois moy nga am euh, les coups de franche. donc yéen da ngeen yaakaar ci am majorité. pour que kenn dula la pour que Ken dañuy am majorité à l'Assemblée nationale du question yakar avec euh, commencement bi gis nañ li nga xamné déroulé na ci ci ci mais non non non dañu koy am majorité parce que majorité bi ñuy jox. Euh, dañ ñuy jox majorité à ci assemblée nationale bu ñu démé élection mm. té président mun na tas assemblée nationale bu ko tasee mun ñu dem élection président yi ko fi wuté yépp loolu lañ def pour gouverner confortablement mm. ndax lenn rek war na mëna tax ñu am à assemblée nationale moy euh, loi d'orientation budgétaire bobu ñu refuser loolu rek rek rek rek motif la pour ñu tass assemblée nationale dama la koy wax parce que assemblée nationale dafa fi ñu war nekkal askan bi bu ñu démé lool ngay conseiller le président je dis que c'est ma position personnelle ce qui nous permet de gouverner normalement confortablement maintenant ce mooy tax ñu jalon yi permettre dem économiquement parce que vous gis jàng la da ngay jàng xam télé bi bu dafa daanu ba tollu niveau deux mois trois mois mu redresser. da toog un an deux ans ndegam télé kese ngay def noonu asuma ak réew maintenant nanu di bu ñu kenn wax ni way yéen a waxoon bu ngeen ko jëlee sa suba sa mu changé c'est totalement impossible d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs bu ñu la waxee sax loolu waroo ko gëm bu la nit waxee loolu te gégguma fu ñu ko waxee te bu la waxee loolu nga bañ ko nga war ko gëm ba pare wax bu ñu ko waxee da ngay xool la ca biir xam nga wax dañ koy wax sànni yow yaay analyser lan la

ndax yéen kat tegu leen seen conc ci dossier yéen kat gisuñu leen ngeen di augmenter ay salaires yu nga xam ni sa seen salaire bopp la wala train de vie de l'État ngeen koy jéem a yokk mhm. comme gis nañ leen nag ngeen di def déclaration de patrimoine yëpp ñun de ñun mun nañu muñ xiif mun nañu muñ mar ba ba ñuy teg réew mi ci yoon parce que bu ñu dee xiif ak di mar dañ koy àndandoo waaye bu fekkee ñii dañuy xiif ak di mar ñii ñoom nekk Eldorado seen doom yi di génn fu dugg ci boutique génn ñu jënd la fa ne bu ko defee ànd ak garde corps loolu moo révolté loo Sénégalais yi te loolu ko gis Sénégal loolu mooy problème bi changement bi rek loolu la. gisati nga benn doomu bos bu nga xam day dugg sa waay ñëpp génn et parce que mooy doomu président. am non amu fi. gisoo amul.

looy bëgg wax du dëgg loo xalaat du dëgg ba pare nga bëgg continuer di wax ni ñi. tu fais non ku wax loolu rek ak ku mënti doon. waxoo waxoo lu dul dëgg wax nga lu dul dëgg. Mhm. looy xalaat du dëgg. sa analyse du jub man sama analyse jub na ndax man fu ne toog naa fa ni leen premier tour laay jàll. Hmm. ñoom ñëpp ñu ni premier tour munul am Sénégal surtout opposant munul nekk ñun ñu ni leen premier tour la ñuy jàll suñu analyse moo gën a exact waaye yow loo wax du dëgg looy bëgg wax du dëgg loo xalaat du dëgg nekkoo ci dëgg waaw kooku kan moo lay déglu. kan ngay waxal mais ñi nga xam ne dañuy wax di jéem a critiquer ay saaga ay nangam et góor dafa war a am fulla ak fayda. wax. non wax rek parce que nag ah, tamit tamit. góor non non non je ne cite góor da ngay am fulla ak fayda ak fit ak jom ak ngor. Hmm. dangay ngay maandu da ngay dëggu da yaru góor noonu lay mel. tu ne te pas à des de femmes.

maintenant il est responsable mais yéen ba ngeen nekkee dans l'opposition. ah immigration boobu ngeen doon politiser. parce que